jërë ngeen jëf euh, mbokki internetu Dakar Actu euh, dañuy faral di wax naan euh, dëkk bu ne ak la xew xam nañ ne nag du guleet saa yu ñu ne mbuur rek xel yi li ñu njëkk a daw moom mooy coowul suuf moom la ñu dellu siwaat fii tey pour wax ci quartier bii ñu nekk moom moo tudd Guy Murit Guy Murit nekk quartier boo xamante ne jamono ji bokk na ci quartier yi nga xamante ne ñoo gën a yaatu ci mbuur mu am nag coow bu fi am diggante mairie bi ak benn famille bu fi nekk li indi coow li nag moom mooy benn école bu ñu fi war a def mais école boobu dañu ne famille bii nga xamante ne moom mooy la famille Danso mère Ami Biaye ñu fekk ko fi la ñu ne këram gii dañ ko fi jële yóbbu ko wala dañ koy jox kër wala duñ ko jox kër mbir mi nan la demee diggante la famille Danso maire Ami Biaye ak mairie bu Mbour nettali ci gémmiñu borom. maa ngi affaire bi nu mu demee ne comme nu mu ko rek man bi ma fi nekkee yàgg naa fi torop mat na 30 ans léegi nit ñi dañuy ñëw fekk si ma fii ñu dëkk ñu dëkk ba mu yàgg ñu ne dañoo am école bi ñu war a tabax fii. ñii dem réunion duñ ma ci boole ñii dem réunion duñ ma ci boole bu benn bés rek ma gis rek ñu ne école yi la ñuy daaj ci ginnaaw sama diggante ak yoon la amoon yoon boobu maa ngi fii waxuma ci dara ñoom ci seen bopp ñëpp ñu puus leen ki ma dendal sax kooku dañ koo jox zéro sama kanam nii ñu puus ñëpp jox ñëpp seen kër ñu bañ maa jox ma dem di laajte chef de quartier bi mu Oustaz Ndiaye mu ne mooy foog nga dem mairie nga dem seet sa numéro nga fay porno ma dem ñu ne ma fu ne nii yow waxuñu la yow fu nga nekk àngal nga nekk kon yow pousse waru la jóg waru la da ngay bàyyi bu ñu ñëw ñu xam naka la ma daal di ñëw bi ma ñëwee nag ma toog bu mu am ay benn weer yooyu ak une semaine rek ma delluwaat ma déggaat ñu naan ne école bi dañ koy poussé ci lañ jël école bi ñëw pousse ko ci sama kaw bi école bi bu ñu ko poussé sama kaw ma jogaat di dem laajte Pape Thiaw na ma sa kayitoon suukar man yoruma ko demal nga wax ak chef de quartier bi bi ma demee ci chef de bi mu ne ma ah kay sa kayitu baa ngi foofu ma dem ci Touré domaine Touré génne sama numéro mu ne ma demal nga jokkoo Pape Thiaw mu jox la sa numéro nga jokkoo ak moom nga wax ak moom mu jox la sa numéro nga fay. ma dem mu ne ma courant bi daa coupé courant bi coupé na ba mu am ñaari semaine ma toogaat mu ne ma waaye ko lii ñoo ma woo na ma wuyu si mu jox ma plainte ma dem wuyu ko tamit sa fa laa ko moom ma laaj ko mu ne ma sa carton suukar yoruma ko fu mu ne nii da dem waa école nga wax leen ñu jox la sa suuf. man fu mu ne nii mënuma laa jog dara numéro bi nekk sama dentité dentité basan yi la doon euh, kii lotissé recensement mu coppati numéro bi génne ko mu ne ma numéro bi valable te boobu mooy sama numéro kër kii jóg nii maa war a topp ci moom mais kër gi nekk ci moom man xamatuma naka laa mel ma toog sama toogaay bi mooy lii ñu jékki-jékki rek buddi école yi ñëw sama kay ñu tabax école bi bare sama diggante ak yoon wi seen yoon bi léegi ma jàkkaarloo man jox leen ginnaaw ñoo ñu jàkkaarloo ak ñu toogati ba mu yàgg ñu ñëw ñu dañuy collecter man fii sànq sax bi ñuy maye mbuur dañ may dañ ma koy tere du ko am ravitaillement bu ñëwee dañ ma koy tere fii lañ koy fettaale ci école bi ma jàpp yàlla mais loolu moo tax sama affaire kër gi ma ñaax ci ko parce que moom mooy sama dund moo tax ma bëgg a préfet xam nan la may def ndax ma mun a dund ak sama jaboot yi ku mënul jënd saket nan la mun a dundee lan lay am damaa nekk ci yërmantal damaa jaboot loolu moo tax sama jëkkër dafa gaañ mi ngi ni mooy couronnement école couronnement bi waaw moom la ki nekk benn waaw école bii ñuy jàngale wax naa leen ko fii école bi ñuy jàngale mooy couronnement kër bi nekk sama ker moom la ñuy yëkkat moom lañ ko ko jox mu tabax ko ñu luyee ko def ko école ñi koy fay weer bu ne te man bu ma amee kër foofu du ko luyee parce que ba doolo la kër rek laa soxla man loolu mooy sama sama jooytu waaw maa ngi ni waaw maa ngi fi sama bàmmee daal fii laa koy sa def waaw luñ ma mënta def daal fii laa xam sama jaboot yi fii lañu xam xamuñu fen ndax juddoo ñu fee Casamance amul dara waaw man la Mariama Danso doomu Ami Biyaay mi nekk Guy Murit ci école Guy Murit bi am problème ci jamono ji ñu toll nii te ñu koy joytu amuñu ku ñu jàppale sama yaay nekk na fii presque 30 ans ñun fii presque fii lañ juddoo ñun te suñu lépp fii lañ ko defee képp ku fi ñëw ñun ñoo la fi ñoo la fi teeru ci koñ gi kon nag euh, nee nañ école bi fii lañ koy defee dañ koy miire dugal ñu ci biir te ñun amuñu fii amuñu kilifa boo xamante ne suñu papa dafa dese da yàgg na fii lañ nekk di daan doole sama yaay muy tëstasi di ñu jàppale ñuy jàppalante amuñu kenn ci ku ñu wéeru moo tax ñu bëgg ñëpp xam li xew parce que mënuñu fii dëkk depuis presque trente ans nit ña ñëw fekk ñu fi ñu ne may nañ leen école ñu jëlee ñu fi génne fi ñu fi nekk yëpp ñoo xamante ne ñu ñoo leen fi jiitu ñu teg leen suñu côté fii soriwul ñun ñu jëlee ñu fi di ñu ñee dañuy yóbbu feneen ak naka su dul noonu ñun daal dañuy ñaan yàlla di ñaan borom doole yi ndax képp koo gis fépp foo gis rek am na ku dëggu waaw ñëpp dënguñu am na ñu jub ci dëkk bii am na ñu mën xam luy dëgg day dañuy ñaan di ñaax gaay ñu ñu dimbali ñu xam teg yoon gi teg affaire bi ci yoon suñu kër gi ñu won ñu ni fii ñun ñoo ko moom fii ñun ñoo fii nekk parce que école bi ñoo ko fi jiitu école bi bu ñëwee mu fekk ñu ñu dëkk fii ñu ne dañuy jël dugal ñu ci biir pour clôturer ñu ci biir te ñun xamuñu nan la ñuy def ñaan nañ fu ne sama daw na fu ne fépp foo xam ne nee nañ ko rek fii nii boo fa demee dinañ ñu teg ci dëgg dem na fu nekk kon nag lii nag lii mooy loo xamante ne ci moom lañuy sës mooy monsieur le préfet ñu koy ñaan mu jàppale ñu ndax ñun amuñu ku ñu jàppale. lii amuñu fenn fu ñu jooytoo suñu nakar amuñu fenn foo xamante ne dinañ fa mën a taxaw ñu ne lii kii moo ñuy dimbali kii moo ñuy jàppale yéen ñii xam ne ne xam ngeen luy dëgg te yéen ñii xam ne ni xam ngeen lu dëkk ji du dox. te ngeen nekk ñu teg leen ci yoon ngeen di dindi lu lu lu yoon di ko teg ci lu yoon lu dëggu sama xol a jeex ngeen jégal ma ngeen teg ko ci yoon ñi xam naka la. maanaam boo xoolee sama yaay bu mu fi dëkkee ak léegi daanaka xale yëpp fii lañ juddoo fii lañ yaroo fanweeri at ku ko def ci dëkk waxuma laa fi nga juddoo sax fa nga dëkk amuñu fuñ jëm fii lañ dëkk fii mooy suñu kër. waaye tey jii buñ ñëwee bëgg a jaay doole wala bëgg a def loo xam ne naka sudul noonu bug ñëw woon ni tey jii borom kër gi bu fi newoon tey jii du demee nii waaw borom kër gi bu fi newoon sam pap moo su ko jur bu fi newoon du demee nii waaye tey jii dañoo bëgg a jaay doole jaay ñu loo xam ne nekkul te am na nguur gi ñu fi ne xam na luy dëgg xam na luy yoon am na loo xam ne nit boo fa tolloo da ngay xam luy yoon mais bu jël loo xam ne teg ko nit jël seen doole teg ko nit teg nit ñi foo xam ne maanaam am na loo xam ne boo xoolee sax da ngay xam ne lii du yoon waaw tey jii tey jii kër gi fu mu nekk nii nii nii ñëpp jox nañ leen seen kër sama yaay fu mu demul amul dem na mairie dem na fu ne amul fu mu demul amul tey jii ñu bëgg koo jaay doole nag n'importe comment maanaam mooy ñi nga xam ne ay vaurien lañ wala nekkuñ ci loo xam ne di non non pas encore waaw nit koo gis rek am na ci loo xam ne tey jii mën na cee dem mu sotti mais lépp nguur gi la waaw président bi ku mu fi teg ñoo xam ne ñoom ñooy njiit gi ñun ñoom la ñuy ñoom ci ñoom la ñu war a dem te ci buñ fa demee ci ñoom tamit ñoom ñoo war a def loo xam ne luy dëggu waaw dëgg moom képp ku ko gis da nga koy xam mais tey jii lu ñu jaay loo xam ne jaay ñu doole jël école bi miire ko bug ñëw woon bàyyi fee def fee terrain ñëw tey jii bugg a jël école bi puusaat ko mooy maanaam da nga ni ñàkk seen kër gi non non kër gi moom bu ñu ko naree ñàkk wax dëgg yàlla moom ñun seen bakkan dañ koy joxe wóor na yàlla. ñoo nekk ci kër gi ak kaa fi am nii. problème école bi ak kër gi xale yi fi juddu nag am nañ bag waaw man moom juddu ma fi juddu naa juin soo ñëw mais ñi fi juddu am nañ bag ñii fii ci kër gi. waaw problème bi am nii nag moom li ñuy wax rek noonu la demee waaw parce que man mii toog nii dem naa mairie dem naa kadaas man dem naa fa xam naa lépp ma ñëw ma toog fekk na nag sama dem Casamance ci dëju magam bi. ñi daal di uh, ñëw wax ma ko ma daal di fay dem man de maa fa dem bi ma fa demee nag bi ma ñëwee ma expliqué ne ko ñu ne nga dem fay sa borne mais dem nañ fa ñu dem ko teg xel xel lañ ko teg mu ñëw xamul lu xew mu ñëw wan ma kayit bi ma ne ko lii du numéro munoo cee kii mais ah lépp mbirum yàlla la rek waaw lépp mbirum yàlla la préfet woo ay procureur lépp mbirum yàlla la parce que ñoom ñëpp yàlla moo leen yor. waaw ñoom ñëpp yàlla moo leen sax yàlla moo ñu sax moo leen sax ñoom ñëpp waaw mais yàlla baax na daal ñu ngi leen di ñaan di ñaan askan bi di ñaan population bi ku ci mën a am li nga ciy def wala nga xam noo ciy taxawee ñu ngi lay ñaan ñun ñu ngi lay ñaan de waaw ñu ngi lay ñaan di leen sant di leen gërëm nag